salaamaaleykum mbokku internet yi salaamaaleykum mbokku téléspectateur yu ñu ci seen euh, télévision bi di Bantamba TV bi tey nag te tey le vendredi euh, le 8 décembre 2023 bu ngeen ñu gisee nii ngeen xool décor bi ngeen xam ne nekkuñu Dakar nekkuñu Dakar xaw nañu fee xaw xaw nañu sori lool ñu ngi fi nga xam ne moom mooy Palmarin ku ne Palmarin nag di nga mu munoo bañ a xalaat ki nga xam ne moom mooy Ambroise Sarr yàlla dogal nag à partir de démb jeudi. ak tey ak suba incha allah ñu ko fi defal sargal ñi nga xam ne ñoom la bokkal génération donc euh, ñoom ñoom Camille ak ñooñu ñoom ñoom George ñooñu ñoo ñoom ñoo jël décision ne dañ koy defal li nga xam ne moom mooy sargal tey jii vendredi si si si kanam tuuti ni la ñu war a def li nga xam ne moom mooy panel bi ci panel bi ay ay ay personnalité ñoo xam ne ci ci CNG bi ba woon lañ bokkoon mu mel ni euh, ku mel ni Ibrahima Sarr nekkoon ancien directeur administrative di si di CNG ku mel ni Abdou Badji nekkoon ancien directeur technique national ku ku mel ni Thiaka Thiaka Faye nga xam ne moom moo nar a jël parole si li nga xam ne moom mooy mbër yi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo jaar si ay ay loxo Ambroise Sarr ñu bëree bëri donc ay famille ñi nga xam ne ñoom ñoom la nekkandoo di di foondoo ñooñu na nar fi jël parole wax ci ki ki nga xam ne moom mooy Ambroise waaye am na décor bi rek ñu ñu ñamal leen tuuti ñu ñamal leen tuuti si décor bi gis ngeen ni. gis nañ ko noonu lii mooy gis ngeen ko noonu gaa ni nii toog hmm, gaa ngi toog di xaar gis ngeen décor bi ah gis ngeen décor bi nii tuuti gaa ngi nii toog di xaar en ñu dem julli jumaa ñëw yëf commencé gaa ngi nii toog gaa yi jóge nag fu ne ñoo joor ak fu ne kii nii war ngeen ko xam ah kii kii nii war ngeen ko xam ñu ngi lay. abu abu naka yow la ba. Xadafi ñoo joor. Xadafi yow lan moo tax ñu ñu jox la turu Xadafi déjà pour commencer. non moom lañ ma tuddee mooy sama turandoo. Mm-hmm. waaw bu dee Xadafi nag xamee ko ci ay pré préparateur mystique kii di euh, Siteu Xadafi mi moo ko yóbbu muy bëri ji waaye kii di Boy Niang aussi Xadafi mi moo ko yóbbu muy muy bëri ji na ci li tax ñu ne combat Siteu ak Boy Niang sax mënta mënta nekk kii mooy Xadafi nekk nag mag ci ki nga xam ne moom mooy Oumar Diouane. xam naa boo demee Sénégal ñu bari Oumar Diané la ñu gën a xam parce que moo def carrière carrière internationale lan lan moo la fa indi xarab bi tey. Ah, waaw Abou fii dañoo ñëw fii tey pour participer si bés waaw ndax Pa Ambu moom suñu lépp la bibliothèque la ci làmb daal waaw bi ñu xamee làmb ba léegi moom lañ xam. waaw loolu moo ñu indi fii tey. kon ñu ñu leen rek paa nii gars ngi toog gars yaa mel ni gars yaa daw am na ñoo xam ne ñu ngi daw dèjà waaw ñu ñu ngi leen. ça va bien. naka ngeen di waajalee li nga xam ne moom mooy eh, kontaan rek. waaw kontaan rek pa bi moom pa ambu xam naa ko bu baax bu muy boree Dakar booba maa ngi di jaxaw siin dëkk bu ñuy wax Bayak après may muy jóge Dakar booba moo am licence di ñëw foofu Niakhar eh, directeur Sao Ndiaye di ko indi. bu muy ñëw def naa fa final raw gadu après moom ci boppam mu décoré ma foofu t-shirt mm-hmm. Malboro mm-hmm. ak cap léegi ma jóge foofu maa ngi ci liggéeyu peinture ba ma ñëw dëkkam ci këram laa nekk nii. wetu daal nga ñëw tey daal fa fas yéene waaw waaw bokk ci affaire bi yëpp man la solo waaw Mbaye Bayak laa tudd Mbaye Gueye Mbaye Gueye Bayak ñu koy doon wax Boy Gueye Bayak waaw am na solo kontaan rek ndeysaan waaw jaajëf ngoon gi gars yi gars yaa ngi noonu gis ngeen décor bi noonu siège ngi noonu di di xaar hmm? gars ngi noonu gis ngeen pa pa yaa ngi noonu toog xaritu père ambu yi ñoo ngi nii ñu ñëw euh, gis ngeen ko noonu ci waay kan man maa la luy sukaay luy sukaay loo bokk ak euh, ambu amburu nous sommes de la même génération génération mille neuf cent cinquante cinquante deux ba cinquante trois on a grandi Ambu dafa amoon eh, dévotion mm-hmm. Ambu toppatoo du jàng mm-hmm. il a fait après toppatoo mbappati di ngeen boole mm-hmm. on a am jabar bu baax léegi bu ñu gisee que Ambu su demee CEDEAO saa mu gañee coupe yi quatorze coupe or daf ñu doon invité jox nu ay teranga ñu lekka jox nu cadeau Nigéria yëpp léegi ñu fay ne Ambu décroché na il faut ñun ñu jog defal ko fête ba yëpp ñëw léegi nag yi ñu ngi fi. Euh, yëpp ñu ngi fi. kon daal ci kanam lu ko mu door incha allah. waaw lu su ko defee. Mhm. Euh, ci kanam dina baax. Mhm. fu mu exposition au temps de Fra Bopp François Bopp yëpp ñu mu fale après suba. Mhm. ñale ñu def ko rek ak euh, mbapat bi ak képp lu am rek dañ ko xeeb. ci kanam incha allah waaw ñu assister affaire bi yàlla maa ngi leen di gërëm. nga jàppale ñu dégg nga. man je suis le proche collaborateur man maa si kon restauration bi yàlla dogal na nag yi ñu ngi ñëw leen lekk. ñëw leen naan. Euh, euh, euh, jaloore yi ambu def. merci beaucoup jërëjëf ay kan moo lii kan moo lii fitna bëgguñ ko. jërëjëf. maa ngi la koy delloo. na ngay dey ça sant ndax mën nañ xam lan lan mooy sa sa sa tànk tey fii fii ci Palmarin. sama tànk nag mooy feccale coloré avant tout suñu diggante Edu. teg si itam paa bi. paa bi dañ ko war a delloo njukal en travers le monde. dañ ko waroon defal bibliothèque comme mémoire. ndax dafa def loo xam ne lu am solo ci àdduna depuis bu fi nekk ba léegi mhm. zéro faute kenn mësul dig gémmiñam kenn mësul dig làmmiñam mhm. médaille bu ne nag dugal na ko fii Sénégal kon dañ te àdduna bi yëpp ñoo fi war a daje ñu rendal ko hommage mhm. affaire bu xom bu neex parce que teranga bu ne nag Père Ambou defal ñu ko Père ambu dese la ñu dara ci àdduna xanaa di ko gërëm di ko ñaanal rek muy yàgg fii te wér ñi ko fiy nekkal nitam ñu góorgóorlu boroy tànk yooyu ndax mosu fee indi détail mosu fee xoloo day mbër yëpp ay xaritam lañ ñëpp mooy li simple ba fara yëpp ay xaritam lañ yaa ngi jox ñëpp rendez-vous ci kanam ci kanam day xumbate dëggan Mamadou Mendy nekk directeur technique régional bu bu Fatick ku ku ne xam na relation ma ki nga xam ne moom mooy Père Ambou mënul ñëw nag waaye mu mu mu mu mu ne doomam ji nga xam ne moom moom moom mooy taawam di Amadou Amadou Mendy ne ko de demal nga nga teewal ma Amadou naka nga egsee naka nga ñëwee ak ambiance bi noo gisee. waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp ñi ma fi fekk ak suma papa ak suma yaay bi ma bàyyi kër ga. sama nag moo am relation ak Pa Amoura Sarr mais nag man maa Pa am Amoura Sarr miinantum Edu laa gën a miinanteel yàlla ak Yankuba mm-hmm. ok mm-hmm. mu doon loo xam ne lu rafet la bi ma ñëwee nag dama kontaan mm-hmm. parce que dama ñëw mu mel ni sama papa daal mooy yegg si. ok ñu toog waxtaan mu xelal ma lu loo xam ne ndaw soxla na ko ma kontaan si trop loolu daal moo si nekk daal. di kontaan yàlla nga waaw di sant ñëpp daal xaar bagage ci kanam waaw mais nag yoon bi xaw a xar xar daaw yi dee affaire xat daal waaw loolu moo tax. merci beaucoup ñu waaw yow tamit nag di la sant bu wër a wër a wër ok merci beaucoup. moom mooy ñëw ne ko père Ambou moom mooy ñëw noonu. de de def weexam. de def weexam. noir blanc mu mel ni si si si gannaawam waaw moom nag xam naa dañ ko écho waaye ñoo nekk noonu gis ngeen Ibrahima Sarr tonton Ibrahima Sarr moo nekk noonu moo moom mooy ancien directeur administratif bu di bu CNG kii kii waaw Sarr amundu Sarr Sarr Sarr Sarr Sarr Sarr Sarr Sarr Sarr Sarr Sarr Sarr waaw gis ngeen loolu loolu mais ñaari moo am amu balaa nga dem xam na ne affaire commencé mais ñaari moo waaw mais xanaa di leen gërëm rek ci événement bi nga xam ne moo am fii tey ñëpp lu ko euh, vraiment yéen yi nga xam ne yéen yor aussi média yi di ko tasaare fu ne ñu ngi leen di gërëm lu ngeen bëgg yàlla na leen yàlla def yàlla mun na ko yàlla na ko def. mais tey da nga def weex def def kii bi def mel ni da ngay fàttaliku démb de wala. waaw waaw mais ah xam nga noonu la rek euh, léegi léegi madame yi wax ne lii ngay sol ngay sol comme ñun ay màgget lañu. waaw noonu rek la waaw. Ah. léegi ci kanam incha allah waaw. am waañ bi ñu ngi ci kawam fu ngi koy togg daal ba mu neex. togg ba mu neex. waajal bésu Pa Ambu bi. pour def ko daal mu gën a neex. Mhm. bésu Pa Ambu moom ban importance la la la am ci ah bu bëri sax. Mhm, da def fee deflu lu rëy. Mhm. ñu kontaan ci torop. waaw macha allah loolu ba léegi rek gaa ngi ah, ñi di génne ndox ñi di nekk ci affaire ba léegi di xolli rek maire yee nekk nii. Hmm? ni ku maire yi nekk ni defar ah, gis ngeen leen noonu. bi waañ bi dara manqué wul. Mhm. yëpp a ngi normal. bomb de. ñu ngi bomb ginaar waaw. bomb ba mu set. di waajal togg eh, reer bi. Mhm. waaw lan ngeen fa fas yéene eh, régal tey. dañu fas yéene régal. ah lépp. Mhm. Ah, ceebu ceebu yàpp ngi fi. Eh, vermicelle a ngi fi. Mhm. petit pois mi ngi fi. Mhm. lépp a ngi fi eh, kay dara du yomb tey. foo ko séntu rek dañ fay ëpp. wax dëgg ak yàlla suñu bés bii tey moom. Mhm. ah macha allah moom ku ko manqué moom manqué nga gis. daara manqué wu fi ay naga ngi fi ay xar ginaar béy dara lépp lu mu ngi fi lépp a réglé. sargal Ambroise Sarr ban ban ban importance la la am ci yéen. yee ñun kay fi mu ñu jëlee sax xamoo ko dañ cee kontaan ndax lii luy luy avancé loo dëkk la. ndax lii de wax dëgg ak yàlla nga toog ba ñu ne la sa sa parent dañ koy ñëw pour salgal ko ci dara mm. wax dëgg ak yàlla macha allah dañ cee kontaan mm. neex nañ suñu xol mm. wax dëgg laay am luñ ciy rëccu mm-hmm. mais yàlla nañ ci génn ak yàlla nañ ci dugg ak jàmm génn ak jàmm waaw ku ci ñëw mm-hmm. yàlla nga ñibbee ak jàmm tànk bi la indi woon mm-hmm. yàlla la delloo ba sa njaboot bu yàlla te loolu. jërëjëf waaw asalaamaaleykum. maaleykum salaam. naka ngeen def. ñu ngi fi rek. ñu ñu ngi fekk kër Père Ambou. waaw waaw Ambou moo xewle tey. moo xewle waaw. ay dëkk ay dëkkandoo ay mbokk. ay dëkkandoo ay mbokk mm-hmm. waaw. Mm-hmm. ngeen ñëw pour neexal bésu tey. waaw waaw bésu tey ji kañ. dañu mm-hmm. buggal mu neex be waaw. lii yaakaar naa est ce que mos a fee am fii. mosu fi am de mu fi am. kon bii mooy gulet ñu ne embrassade dañ dañ koy sargal. parce que dafa indi alal bu bari ci Sénégal yëpp du dëkk bi Sénégal yëpp waaw Sénégal yëpp la indil waaw. naka naka la tur. Anne Marie Sène. Anne ñu ngi lay nuyu. anafio. nga men. jam so. hanu ñaaƴa. kay kay ngar men rek mboktidanun bés fe naka naka nga gisee bés bi tey. saate fe ah keke a mujjee dang sata jalana in a lamana lam keta fiya keke na yaay fa fapa soɓun no tana soɓun o o yitangoya jogoyani ten rimu ambu jee ka ñaajeer na mhm. ta koy i kontaana de waa dëkk machallah mbina capa mayu haa wod fo fo wodan o yoon o maafa jeeri feɗaan ta fodit fo jegaan to a guutatit fo ñakaan ñaari moo rek laaj dañ ko écho mais déteen en deux mots déjà sa sa présence fii Kër Ambroise mais moi je c'est le sargal de Ambroise, mais c'est le sargal de Barji. parce que Ambroise et c'est la même personne relativement tôt avant 10 heures déjà non moi je suis un l'enseignant quand on heures tu à 9 heures mm. donc euh, c'est le même principe que j'ai accepté je suis là très tôt loolu saagal waaw boo ñoom loolu saagal après da ngay nii ne leen nii ne leen mer ba ba futu boobu temps Ambroise nu mu nekkee nu muy def lutte simple na la nekkee lutte lutte olympique léegi ñëw ceinturé mbër mi daf koy tër di jóg bi ñu jógee mbër mi bi mooy nekk ci kaw Ambroise nekk ci suuf stade bi jóg mais bu ñu si suuf embrasé de hmm. ko ah gaa yi comprendre donc moo def loolu embrasé ne ko lu bëri. ñu jóge ci tournoi yooyu tournoi Sénégal mu am tournoi bu ñu tuddee tournoi Laurent Dona Fologo Laurent Dona Fologo ancien ministre bu Côte d'Ivoire moom tam mu organisé tournoi. Ambroise ñëw toj tournoi donc loolu mooy jaar-jaar Ambroise équipe nationale traditionnelle lu mu jógee équipe nationale traditionnelle Ambroise dem équipe olympique mais li ñu bëri xamul bu ñu ne lutte olympique dañuy confondre parce que lutte olympique am na ay ay ay pàcc lutte gréco la lutte libre la bus wrestling la fan yi lutte gréco mooy kenn du jàpp tànk bi nga waxee pré précocité amorasa précocité boobu moo tax ñu yóbbu ko cent kilos donc pour may place ñenn ñi comme ni kenn ni ngeen ko defee fii noonu lañ ko ko defalee équipe nationale ñu ne ko yow sa précocité ak sa performance fokk ñu pousse la nga dem ci kaw noonu lañ ko poussé mu dem cent kilos parce que da nga koy gàttal rek mënoon naa ci Ambroise Sarr en tant que lutteur fii Bousso mais Ambroise bi mu jógee en tant que lutteur simple dem lutte en équipe nationale mu dem lutte avec frappe yooyu yëpp yéen xam-xam jaar-jaaram en lutte avec frappe nekkoon fo defoon fa ay jàllale kenn xam mu jóge foofu balaa muy dem lutte olympique Ambroise nekkoon na fi champion de boxe boxe champion de boxe tout court na fi champion de boxe catégorie cent kilos donc hmm? donc Ambroise carrière am en tant que lutteur am na ko wax en tant que lutteur moom kese kese kese ci athlète yi ma xam Sénégal moom kese moo ci dem Jeux olympiques quatre fois yu tegale or diggante chaque jour olympiques à Borom quatre ans la boo demoon ren da toog à quatre ans wala deuxième olympiade bi ñëw Empereur kese moo ko def quatre fois d'affilée mais ci teewaay kan ci teewaay minu monument bi toog Ibrahima ñun dañ ko daan wooyee la bibliothèque loo bëgg a xam ci lu Sénégal administration ba ci jaar-jaar mbër bu nekk ñëwal ci moom. donc am bu mu bu jógee bu muy defee carrière en tant que lutteur ba pare mu war a ñëw def carrière en tant que entraîneur mais mu tombé man ci laa ñëw en tant que directeur technique alors bi ma ñëwee li ma gën a jiital mooy la définition de quoi, c'est quoi l'entraîneur C'est quoi un entraîneur C'est quoi un arbitre Alors, un entraîneur, bu kii bëree boo bàyyi tëb rek nekk entraîneur déedéet entraîneur mooy ki ko soob maanaam ki bëgg a nekk entraîneur dem defi formation mu jàng nu ñuy jàngalee nu ñuy nekkee entraîneur ba pare def examen jàll ñu jox ko diplôme diplôme boobu mooy mooy wax ne kii entraîneur te loolu Ambroise Sarr foofu la jaar daa def stage entraîneur moom ak ñoom kat yi jóg bu am li jaasa bu ko may mu nekk entraîneur lutte donc am bu def na loolu d'accord donc bi mu amee li diplôme am en tant qu'entraîneur ci laa ñëw ma ne dama koy nommé entraîneur national ba waxtaan ci ak sama mag bii toog mais bi ma jëloon mooy démarche d'un disons euh, maanaam am na ko wax fii sànq que Ambroise du du du seet kii laa bokkal ak yooyu donc gratuit ci laa comme Ambroise jàngam taw ko sori noonu te entraîneur dafa laaj bind entraîneur dafa laaj conception maanaam xalaat lan ngay def fii ak sax quatre ans dix ans ma am na ñaari ñu am Ambroise Sarr en tant que lutteur am xam-xam xam bari mën ko mais xaw a tële ci maanaam bind lu mu xalaat parce que lu mu xalaat moom mu ci bopp mais nu mu koy bindee loolu jafe na ko ma jël ki tudd Mindor Diouf bu Diofior Mindor nekk instructeur de lutte ma ne Ambroise yow yaay nekk entraîneur principal équipe nationale Mindor nekk sa adjoint maanaam ma jël ki xarañ ci tapis bi ak ki xarañ ci bind ñu ànd noonu laa composé sama attelage mu ñëw juum ma yàlla euh, suturaal Ambroise def jaloore kenn xam bi mu ñëwee en tant qu'entraîneur li mu jëkk wax Badji na damay dellu Palmarin je vais retourner à Palmarin ma ne ko ah mu ne ma je veux prouver à partir de Palmarin balaa ma ñëw au niveau national moom nga wax sànq loolu moo waral Ambroise dellu si Palmarin créer l'école de lutte Ambroise Sarr donc école bi encourage ça man bi ma ko waxee mu yëkkati bi fee lañ ko lañ ko installé woon foofu la daan entraîné booy mais malheureusement le conseil rural a récupéré la salle jox ko ay espagnol mais balaa boobu Ambra jot na formé xale yi ba man ñëw naa jóge naa Thiès ñëw def ay fat ñu entraîné ak xale yi fële ci plage booy ngalu yi fii lañ daan daw dañu daw fii ci géej boor géej bi ñëw fekk ñu fee ñuy entraîné matin soir am na sax ñoo xam ne dañuy dem ba ci biir ñu bëgg a bàyyi ndax métit donc am bu foofu la jógee comme entraîneur mais lan la doon wax mbëri mu ne ma man du ma sélectionné mbër boo xam ne du daanu déglu leen hmm. ne man du ma jël mbër boo xam ne du daanu mais du ma jël mukk cuune saa ça fait pas de ses slogans ne man du ma sélectionné mbër bu dul daanu de mais du ma sélectionné cuune képp ku ma sélectionné rek dafa am loo mu ne moo tax ma sélectionné Ibrahima Sarr mel ni ku ko dégg ci loolu dina na Sarr feeru ko ne ko mu ne mbër yi mbër da nga war a pànk mu ne mbër da nga war a pànk maanaam ci biir bëri bi da war a am ay fem yoo xam ne soo ko defee sa adversaire waaru loolu loolu moo tax Ibrahima di wax mbër yi mbër dafa war a pànk donc ça c'est une partie d'Ambroise Sarr Ambroise Sarr c'est la rigueur dans la sélection bu ñuy sélectionné mbër yi man damay toog sama bureau Sénap Thiès woo ko ne ko am yónnee ma liste mbër yoo xam dañu ko dañ leen a war a convoquer équipe nationale saa yi ma yónnee liste bi at liste man bi may confectionné ci yàlla bi ma tiim su ma xoolee ñaar liste yi différence toujours ñaari mbër la ñuy wute sama liste ak liste am ñaari mbër moo ñuy donc ñu amoon système de présélection dama ko ne am xam nga mbër mais il faut ñu xam seen motivation maanaam maanaam seen bëgg-bëgg ci équipe nationale donc suñu système de sélection mooy dañuy organiser ay VSD VSD mooy vendredi samedi dimanche dañuy woo cinquante cinq lutteurs xam nga lutte africaine cinq catégories la 65 75 85 100 plus de 100 donc dañuy woo cinq lutteurs par catégorie dix lutteurs par catégorie mu nekk cinquante cinq lutteurs donc mbooy yi dañuy ñëw vendredi dañuy ñëw jeudi fanaan Dakar ñu entraîner vendredi matin añ añandoo midi entraîner vendredi soir ñoom ñu débrouillé yu dem fu leen neex loger kenn du leen jox transport bu ñuy jógee Palmarin ba Dakar kenn du leen jox transport bu ñuy jógee stade pour dem fu ñu dëkk bu subaa samedi ñu ñëwaat dimanche ñu ñëwaat loolu pour lan la ñu def ko pour xam ndax ñii réellement équipe nationale motivé na la mais képp kuñ ci woo ñooñu ñuy jëkk ñëw stade alors ñu xool ci loolu suñ ko defee su regroupement bi paree ñu delloo leen seen passe bi ñu jëlee seen passe depuis Palmarin ba Dakar ak paas bi mu doon def aller retour pendant ces trois jours teg leen ci en guise de récompense donc nii lañ am droit doon doxale ak mbir bu ñu musaan nekk VSD lamb am Adrien Senghor samedi wala dimanche dañuy pousse VSD bi def ko JVSD jeudi vendredi samedi dimanche bu ñu entraîné jeudi vendredi samedi mu ne jaaka demal nga jëli ma drapeau bi Adrien Senghor mooy booy yi nekkoon regroupement hmm. dafa naan yow demal nga jëli ma drapeau bi Adrien Senghor te dañ koy dem jëli hmm. donc ñu xam ne liggéey bu jaar yoon la doon def rigueur Ambroise Sarr ci entraînement dem na ba ay mbër sax gerte ku ci mel ni Moussa Moussa Fall sàcc mbay bu joie dañu entraîné entraînement bu tara tara tara tara tara tara ba pare midi ñu dem restaurant ñu demee restaurant di war a añ ñu gesuñu gisuñu Moussa Moussa yàggul rek Moussa woow ñoom Fodé Fodé fu ngeen nekk Fodé ne ko ñu ñu ngi restaurant mu ne toog leen foofu man maa ngi Joal ñu ne ko lan mu ne man maa ngi Joal man du ma toog foofu ñaari paa yu sadik yi di ma rey yoruma mbor mu ne moom yorul bor jinde mu ne man yoruma bor jinde bi may toogoo ba paayu saddik yi di ma rey noonu la Moussa dawee ñëw beneen bër boobu mooy munde bu jur munde buba bunde bu jur moom nga ñu entraîné entraînement yu tara tara tara tara ba guddi mu yoleeku ndànk jël bagage am yor yor pour daw génn pour ñibbi yor sàggam mu gën a tombé ci benn booy joor booy bi ne ko foo jëm mu ne dama mu ne yaa séeréer rob séeréer rus na def lii delul delul dal ñi la dem ku ci mujj mooy euh, Moussa Pondo Moussa Pondo Moussa dañu entraîné entraîné entraîné entraîné tar tar tar tar bu dem toog wéer nu ci miir boo ko nee Moussa mu ne la suba rek Moussa mu ne suba rek mooy tey moom du ma entraîné Moussa boo ko nee Moussa mu ne la suba rek waaw. yax ya yax yi dafa dafa ree ba tëdd ci suuf mais ñoom ñëpp ci jógee nag sàmm parce que Ambroise regroupement 6 heures du matin réveil musculaire dañuy jóg dem dawi. 9 heures salle jàng technique 16 heures donc trois fois la ñu daan entraîné par jour mais suñu entraînement musul def musul romb 45 minutes musul romb 45 minutes mais pourtant mbëri da nga leen di dégg ci rajo yi damay entraîné 5 heures du matin ba 7 heures ñëw ndekki mis mbuuru après dem salle def musculation ba midi. après ma ñëw après midi contact xam ni loolu <laughs> mënul nekk <laughs> nit mënu bref donc <coughs> lui la Ambroise Keppoé en tant qu'entraîneur avec les les lutteurs sànq gis naa foofale ñaari ñaari ñaari papier bu Ezo bu Togo ak bu euh, Mali signalé Tangara du nen Ambra nu mu amee woon avec les lutteurs noonu la amee woon slogan am avec ses collègues entraîneurs bu ñu musaan ñëw compétition day ñëw xam nga dañuy def li ñu tuddee visite technique réunion technique réunion technique mooy directeur technique yi ak entraîneur yëpp ñi indi seen équipe ñoom ñooy toog réunion balaa compétition bi commencé bu ñu ñëwee lan la leen di jëkk wax mes longue date mais de courte durée Et ça, c'est un slogan. Nous sommes des amis de longue date, mais de courte durée. de longue date mooy xamante nañu lu yàgg mais bu ñu egsee fii xamante wu ba ñëw ñu di ko mere ci loolu mais bu ñu musaan paree compétence ñu lëngu tout de suite donc xam nga rigueur boobu nga doon wax feeñ na fi rigueur boobu en tant que coach ak xarañ xarañte bu nekk ci biir Ambroise mu ñu dem am na conversion mu ñu dem suñ 66 daanu suñ 75 daanu xam nga mu ñett ñëpp mu des ñetti mbër 85 6 bu daanoo rek ñu ñàkk day ñëw mu ne mbër bi da ngay bërëntu ne ko da ngay bëre de daf koy naan da ngay bërëntu maanaam da ngay mel ni kuy song mais du so doo song da ngay mel day miimee di dem kër këram di puus waa ji di ko puus di puus bay jox avertissement donc day négocier troisième combat bi boo gagné par avertissement te bu par avertissement cent kilos bi ñëw daan plus de bi ñëw daan ñu jël raaya xam nga loolu technicien dëggantaan moo koy xalaat mais rigueur bi mu am ci table bi ci ci ci équipe bi même man mi nekkoon patron moom en tant que directeur technique su ma xoolee tax du ma saxoon du ma xamee du ma saxoon xanaa après compétition bu ñu musaan a gagné compétition ba jox ñu raayal maanaam médaille yi xam nga CEDEAO dañuy joxe médaille joxe coupe joxe enveloppe ku daan catégorie bu nekk da ngay am un million un million deux cent ou deux cent cinquante mille en tant que médaille d'or équipe bi am jóge na cinq millions ba dix millions mais dafa am suñu benn compétition buy demee Niger ñu gagné docteur Dieng ki ngeen ki ñu waxoon fii docteur Dieng dem jël enveloppe dañu ne Sénégal moom mu waaxu dem jël xaalis Ambroise ne ko coppat vous avez dit tout à l'heure Ambroise le commerçant ci tàng-tàng bi la fo la ubbi enveloppe bi ko compté taf taf taf taf mu remarqué ne manqué na un million donc gars yi dañuy rocci un million joxe quatre millions donc yaakaar ni nit ñi duñ ko xool mu ne am mu ne jéy delloo ci la woowu ministre bi ne ko xaalis bi motul am mu la enveloppe bi gars yi ah non c'est une erreur gars yi dugaat ñoo am donc ngeen xam ne rigueur boobu bi mu ko jëlee fii palmarin topp na ko bu à l'international d'accord donc foofu laa bëgg a daanelee parce que saa yu musaan dem euh, équipe nationale dañuy toog ba ci yàgg mu ne ma bari il faut que ma woo mairie ndax paay ma ko àngo ah, ma ne ko man tam il faut ma woo paay yi ak mairie <laughs> moom mu woote palmarin man ma woote coom moo tax may naan mbër yi lii daan mbër du ñëw ci làmb ci mu nga ca kër ñaan yi ngi ngeen di koy ñaanal fii moo ko daan toog ba fu mu nekk bi ma Georges wooyee ma ne ko Georges defal nga ma loo xam ne mënu ma la ko fay te duma ko fàtte ba yomal ki am maanaam am occasion wax ci Ambroise ci ci bu muy dund parce que man jomb naa ñëw Ambroise tëdd may ñëw di wax Ambroise di wax ci Ambroise mais lii mooy occasion boo xam ne may ngeen ko àdduna bi yëpp tey salle bi dafa waroon a fees ba ñu teg ay seen ba ci géej ndax am tur ci Sénégal bu jaarul ci loxo Ambroise Modou bi nekk roi des arènes Modou Lo def nag ñun sept regroupement sept regroupement écoutez bien mais lu tax musul sol maillot équipe nationale lu tax musul sol maillot équipe nationale Ambroise daf may naan chaque fois kii xarañ na lool mais bëri bu muy bëri àndul ak bëri bu ñuy bëri moo tax muy teg Modou Lo de côté kan moo ko jëkk a équipe nationale quatre-vingt-six kilos mooy Tyson 2 bu ndaayaa tay jeune de mu ndaayaan moo xañ tay moo xañ Modou Lo équipe moo nekkoon suñu quatre-vingt-six bi après Tyson 2 day njomboor ñëw war a jël place Tyson 2 mu tombé Jeux francophonie 2005 à Niamey foofu mën a xam ñu ñu réeroon tuuti ci poste boobu parce que waa Niger dañu sele dañu def au lieu mu def cinq mbër ñu ne quatre mbër la ñu jël ma ne la mbër problème day am bu ñu tolloo nag ndeke ñoom dañu amoon seen pexe ma ne Ambroise bu ma sànnoon Tyson la duñ ko jël nañu jël laay njomboon mu ne ma noonoon mbër su nekkee ci pos ku ko fa nar a jëlee da koy mën ba ñëpp xam ne kii mën na donc il faut que laay njomboon mën taay seen numéro doo ko taay seen numéro doo xam ne kii moom mën mais bu fekkee dañuy daanante dañuy jël ku fi ne loolu moo taxaw ñu jël taay seen jël mais man d'accord ma woon ci soit boobu ne ko man <coughs> am naa beneen xalaat ma ne ko taay seen day na ci équipe gars yi xam nañu te waa Niger mystique duñ ko caaxaane ma ne ko bu ñu jaaree foofu nag mu ne ma dara moo lampoté la ci suuf ñu jël Tyson 2 premier jour Tyson 2 rey mu li ma la waxam ni man na ko jeexagul de man na ko jeexagul de ñu dellu village olympique Tyson bii bi di daw di wocc di daw di wocc di professeur Raymond Diouf amul garab bu mu ko jox balaa bërset mel nii bant bant ci kaw doo léegi dañuy xool euh, dañuy def la moyenne cumulée des temps de victoire maanaam dañuy xool jël le Sénégal ci am combien de temps lañ ko amee victoire Sénégal yi ak victoire Nigérie yi en combien de temps lañ ko amee def xam nga fekkee ñoom déjà def nañu calcul bi bi ñu defee calcul bi ñoom ñoo ñu gën a gaawle benn suba donc ñu ne ñoom ñii jëlee francophonie 2005 au Niger. Mais comme <laughs> il faut toujours prévoir ma ne leen article bii ngeen génn dugal ci règlement bi nañ ko ci règlement francophonie période bii la woon décembre ñu ñëw avril mu nekk CEDEAO à Niamey am ay mu am bu bis bu toll nii je benn occasion moo tax ma ne deux mil rek laay laay laay jël ngeen baal ma wax tuuti si li ma fekkee di rafetlu nag teewaayu ñëpp rawatina ñaar ñaari bibliothèques yi ñu toog bibliothèque ci wàllu sport bibliothèque ci ci wàllu administration yi moom la Abdou Badji ancien DG euh, Ibrahima Sarr ancien directeur administratif ñii dong bu ñu ñëwee rek mel na ni CNG bi yëpp ñëw nañ parce que kenn ku gu ci nekk rek ci sa wàll da nga wane xarañ ak ak ak xam-xam ak euh, vraiment kóllëre ak yi nga xam ne moom mooy Père Ambroise maa ay Taka Faye kenn demul mu des parce que ñi jaar ci national bëri nañ soo defee vingt cinq ans de coaching quatre vingt dix huit deux mille vingt trois vingt cinq ans nga lu mat cent vingt cinq à cent cinquante mbër jaar say loxo. ñu ñu tànn kenn ne ne ko kaay wax ci seen baat je parce que am na lu ko waral am na lu tax ñu ne ko kaay wax ñu waroon ñu waroon wax bëri nañ ñu ne caaga loolu am na lu ko waral ni mu toll boo ko gisee mën nga ko ragal waaye ni mu mel soo ko soo ko soo ko soo ko soo moom xam ko pratiqué da ngay gis ne amul ku ko ku ko ku ko gën a yaru ku ko ko gën a ku ko amul te loolu rek mooy nit sport defe naa loolu lay def ci nit donc maa ngi li ma seet ñi ma fekk ñëpp mu am ñaar ñu bëggoon wax ñëw fekk que laata may ñëw nekk journaliste moom il il était déjà le coach de fekk ko mu ñëw am baat bu mu doon faral di wax euh, ngoo joojo maa joojo euh, mooy su ngeen xamul loolu séeréer mooy li li Alxuraan di wax neddoo ko bandum neddoo ko bandum mooy alpulaar ak alpulaar ay mbokkam waaye moom dafa doon wax ne mooy ngoo ma ne mooy séeréer ay mbokkam lépp lu lu lu jafe ma abu ndur neem abu ndur laa tudd dëkkal lu seseen bii di mag si miñaan saar sama rakk la bu baax moom tam nekk si lépp lu mu lu journaliste mësul am si ambulance man a loolu tamit def naa ci mbaaxam na woon parce que am na ñu ma jiitu woon ci ci liggéey bi mënoon a am loolu te te amuñu ci ci moom kon nag su ma ko amee bu bés su su bu bu su ma ko waxul mën na doon erreur ci man <coughs> en 2012 bu am lenn lu may wax témoigné ko ci moom 2012 yàlla dogal na le Tolak qui qui avait eu lieu euh, à Niamey du 10 du 20 au 22 avril 2022 mooy jour bi Balla Gaye jëlaat yi kii nii moo doon finalu Tolak boobu équipe bi Moussa Faye la. Euh, Moussa Yandé ah Cheikh Ndiaye 36 Moussa Yandé Cheikh euh, kii dëkkoon ca Caajaay Cheikh Ousmane Sarr Fodé Sarr 100 kilos Malang Ndiaye 100 kilos man ak moom ñoo bokkoon néeg parce que bi ma demee yàlla dogal na man rek maa nekkoon journaliste bu jógee Sénégal dem Niamey pour pour couvrir le tournoi ba demee docteur Alioune Sarr ne ma jarul ngay jël néeg nangam bu noo jógee Sénégal ñëw ko fii nekk journaliste kii ñu ci nangam. da ngay ñëw bokk ak équipe man ak ambu ambourage yu bokk nekk dañuy dañuy tëdd ba guddi mu jóg nekk si équipe ba guddi xaaja guddi mu jóg nekk si équipe bi di di constituer équipe bi di wax ci xalaat nelaw sax du ko def su waree sieste du ko bu bu guddee mu war a nelaw du ko def moom si équipe bi di xalaat teg di teg di di di di pousse ay pion di teg loolu defe naa amour la parce que au delà de au delà de la ak li ko ci woon mooy amoon bi mu amoon ci làmb def naa loolu moo ko te loolu dafa nekk rek un point pour wane ne moom naka la meloon ci national te lu mu la xam-xam ak lu mu la lu mu la euh, mën na wax ngoo joojo maa joojo bu bu équipe bi xasee ngemb bu xale yi dem nga fekk ko état munoo ko munoo koo jege parce que il se concentre uniquement et exclusivement sur l'équipe nationale moom nag lenn rek laay wax mooy li ko manqué leen rek la mooy nekk bu nekk séeréer non non non li tax ma ko wax man xam naa li ma ko wax ñun ñoo ngi si dëkk bi si dëkk bi lañ dëkk nekk ñëpp encourage bu doon olof doon olof la a daagaa olof yaaga yaaga laykataan parce que ñu ngi fiy tàgg ay nit di leen di leen di leen defal loo xam ne defuñu sax le dixième le dixième de cette emploi à fait malheureusement Sénégal bu wax bu ne fi moom moo gën a bëri ci bu ba bu ne fi da ngay wax bu ne fi coow coow coow bi waxal la ñu dina fekk dina def mais li am roi def les trois formes de de lutte yëpp muy lutte muy lutte sans frappe muy lutte olympique amul fu mu ci mës a dem ba ñu ba ñu amul. wax nañ ko léegi cinq a yi ñu wax man sax quatre laa jàppoon en tant que en tant que athlète mais nee nañ un un cinquième en tant que entraîneur. mais loolu parcours boobu Sénégal bi Sénégal nekk en tant que entraîneur en tant que euh, athlète amul amul amul Sénégal malheureusement s'il ne s'agit ci ci leen plus que de joxe ay raaya dañ koy fàtte parce que amul ku ko waxal te séeréer moo bindoo noo xam ne séeréer du du waxal boppam séeréer mu mënta fàtte boppam waaye ñi ko war a waxal nekk fi ñu war a waxee nekk nekk seen baax bu ñu waxee ñu mën ko dégg ñooñu ñoo dul wax parce que Sénégal dañoo mën a suul daanaan lu ndaaral boobu moo tax amuraat nekk fii tey mais amuraat tey bu doon si yenn dëkk yi la la nekk ay Niger ak ñooñu bëgg làmb xam ko fonk ko kon kenn kenn waxatu ko pale lañ koy lañ koy euh, euh, defar def ko boobu vraiment lépp lu mu bëgg ci àddina mu donte nag mu ngi sant yàlla bu waaye de je veux dire fi ko waroon a teg ak ak fi ñu ko teg nii nii la dernière fois le 8 mai 2023 au palais quand le président Macky Sall recevait les acteurs de la lutte Ambroise ñëw na waroon nekk premier loge fi tegoon ñoom Balla Gaye ñoom moo doon concert concert wala fii Macky Sall toogoon wala fa la waroon toog ñu dem teg ko ci gannaaw doo xam sax ne a fait a de Fatick Sénégal ma bindee l'information comme amul amul ku ma woowul si du Togo pays CEDEAO yi ñii bind nañu mooy bind ñuy wax ne mooy ki ma wax mooy le Zakari boobu nga xam ne papaam la ko la ko wax nee na papaam la moom bàyyi def ko naan ko moom fii mu naan mu naan encourage moom moom papa mu ne bu amoon tey mooy dafay dagg billet ñëw fekkee lii dellu fi nga xam ne mooy Togo kon loolu rek am na lu mu wane moom saay boo boo defee sax photoom ci kii rek ba gars yi ci commentaire yi nga xam ne parce nit nul nul nul nul n'est des prophètes chez soi on le dit souvent te loolu dëgg la waa Sénégal amuñu alxuraan malheureusement Sénégal nag ñu ñuy faral di sargal ni ca ca ca ba muy dund te soo bii wax dañuy bàyyi ba yal na yéex ñu naan lii lañ tuddee alxuraan non defal ko lii maa ngi leen di gërëm ci initiative bi ngeen am malheureusement nag waroon na gën a yaatu bu gënoon coow bu nu gënoon a gën a waxtaan am na ay idée bon man j'ai essayé d'appeler Edouard si biir xam bon xam yu bëri moom mais peut-être c'est une première déjà idée baax na fi muy jeexale rek mooy mbokku mbër yi fi nekk mbokku mbër yi fi ñuy dugg si laa laa ne ay mbër lañ waaye na ngeen xam ne ay mbër ngeen ay ay nit ngeen comme comme su lu mel ni amee bu leen sol ay blouson ay t-shirt sol leen seen yére yu baax nekk ay ay mbër am lu ngeen lu ngeen bëgg xam xam xam li ngeen bëgg xam ne fu nit ki teg tànkam da ngeen a teg seen tànk Sénégal defe naa mbër au début nee nañ gën doon wax ne lu jigéen bon bon bon mën mën a jur mbër waaye defe naa léegi ku xool kër yi ñoom yaxe yu béeg di dëkk ñoom tay ñoom monsieur ñoom moto ba suuf ak ak ak oto yi ñuy dawal ak gëdd bi leen jox nga xam ne saa yi bu ñu bëggee gis Macky Sall sax Macky Sall par ñoom ñooy def demande bi Macky mooy def demande man fekk naa ko ñaari yoon am ne moo yónnee si yëkki ñu ne ko man dama bëgg nga ñëw pare ñu waxtaan loolu defe naa am na ñu fi jàng ba am bac plus cent am amuñu ngeen gën a xam seen bopp mooy du du soo soo waree ngembu ngembul soo waree sol sa blouson solal soo sa cravate ak sa bu rafet dem dem say affaire demal demal négocier wu Thank wala ko yo xam no comprendre ah e ter waaw waaw ka sumay ter kaga na sumni ter la na jola mais juste a fogole ndet na mene fop simna baab in Amoura Sarr position international simna baab in der Ibrahima Sarr fo pir ke ndet na mene fop kilifa ke wasimole ndimmangaaka am juum ka i père ye lawna ndiiki a refa ka felaxama torop parce pa ambu i miñayo mais nak pour parcours um o ndik ba laam laame ɓeerma faxa pa ambu wa laame ta xottaxama we aɗoxama équipe nationale a mayayo may torop mais fogaame champion oxu layna champion xaye sax njom ne muy njom axa wala simple ɓeera naxa ɓayaxe ten a forme a ba forme champion am fagay roi de saren naadaw natadi nda nanndane yahya jooɗi kini o euh, masen mooduɗo fof o lenga table ke jomden sénégal to fogaame fof a ɓeerana xa bay fa ambo da mootlo mose ref compétition mais no ke i njot ina njoktoora a gara regroupement am pagay mais jeg essence pour a ref compétition ke doonuna ten nak 2013 fogaame garidum no équipe fe euh, tournoi sixième édition tournoi CEDEAO Dakar uh, vingt sept vingt neuf juin nden gari ɗum no équipe yem gara équipe fe nak so ɓam maka haɓi sate fe juwala palmare mene ko a sate ke mbiduna ka nannanen hoode saari hoode mbisi isin doole salif jomay ñoon yankuba sar ñoojor bira mandour to kam yaga so ɓum équipe ne oumar juwane bagiri bor do tagen ñoojor ko moussa fay in dokande o équipe ne kongor euh, ke suguma maga lakas koy at waxama fop i ndimanga kam jum ka lata ñako mos ay pakala in fop fogame kam soɓanin maaga bona ordinateur in we ndefna équipe ne xaye rek rek in fop rek rek fogame mene i soɓri fo équipe national sax no hotel fa mana a fiyangan nak xeja cotel ne andera xama mais pour in ley no xeeke bo ta fag andame waginum to we mo ley no ten bota doy aussi parce que anda an na mage numa jeri fa anda e gaynaaɓe anndu ko akooko mbikina groga mbiya haja i ndet bo jegoyo amun jom ye i ndebite a jom i mbuutkoganga jom wala jom a jeganga coté la in sax ngoorte cotel neke da naftoog na in o garanga bindu juwala jong wala zowal fa juuj onan goor maako a leyange nu xepanga nu ñoot nu waaga andeeyo a qooq ande e gaynaak joma andu den mbaagu nuun <laughs> ye ngara équipe nationale aussi yaaga a refanga comme aduna personnalité koyat a refanga no kiin cent faxa mbuuf cent xottaxama ɓisaam bo trois cent mi fo champion lakas ka ngareerna layrong koy technique ka fo expérience fa no jom mais ku refuma no jom xaye roog fo teno parce que yeem ngara équipe ne yaga ay ten deux cent jegum wala vingt ans yaga presque a faya res muufooxe mais éducation layrong jom me adna sax fo personnalité mayu a mbufi un na in na mi fo lakas we yoon tuuma to nanranko mayu no gorto aussi wanna ya ɓeran ha ɓayu mo anna e mbage ngal mais e témoignage faɗin fe dena lawiyo ɗon fa ambujo ka njala fa mbiya in ɓirme mbiya in nanide mbiya in jantal men mbiya in ade masara jeegaɗo hapa waxde layim no jomne mais aduna irke ɓerna équipe national bo meke em laafa noon jege mbirna mosna sutu alla ya adis ɓura walla ta layana ambourage alla porte nafas wa kata kata donuna équipe nationale walla ta toroxatin nafalay walla no jeg mose jeg bo neke to en tout cas a fel'angan o garanga maaga o ñaaƴa no service um walla no kadugum mais fa layum dey ke fo fadik walla tadik to o ɗelemo leko de ta lay kan fop xana ref teen o refanga ya liif ye yoqna fop xana mot to moof ke ma a laya walla ta gañang kam nawle of joko gara condition o bare on tabison gosa yemreta équipe nationale yaga ken affaire ndefu maga noketamuma ten jour na affaire mari vsda yaga cerke mimaya bo poids ne fuk mayu den sax ka découragé ku basi layne o xene cerke ten fo fogoro a ƴufanga rek ta wat yaga we moƴu 10 minutes mais affaire uma ret regroupement deux jours in ƴuf bo une heure de temps to fop in garanga donam ka a geruma wala ke o jejerio wala andinum premier jour in jir wala um décourager rek xaat mais ka dama ma fi'an fo moɓeem a fi'anama escalier étape par étape bo in fad meta bugna garit pour fe normal mayu ta na mino conseil fo na fayat fo mayu to pir lakas ka soɓuma fa o yat waxamma fop to fokate teen faley wala mañeeru to lakas fo lakas ter i njege o ndab dum waagiimo lay no ten bota fag mais o ɗeetanga xaye comme ne waaganuma layta nuun ta rak technologie fe maya lool falay fe maya jom ne mais o leŋ mosenan interview um to a fel angam chaque jour ta xooy internet wala ta xooy site na refna Dioula Samparo TV gari ta gar talalino micro ta leya jom ne wala no ke to combat fu refna ka jega meen euh, fu refna ka xewa jom ne wena leya sax ka leerange ke da leya maitriser iran mais mata moof ka o kiin mosenan fa layu ka a ƭat mayongeer o kiin mosirano nan no ka datmayo ngeerna o mosirano ka datmayo ngeerna to a fel'angaan ta lay koy parce que ka refna njom ne xaye to maitriser iran jege mais machallah o kiin ga tiran teen o leŋ nan tiran teen to kaaga a fi'a na in mayu parce que wiin mayu xaye in ɗeet i ten neke na ñaal nu na i mbaaga laya bo ndokayo no ka andoona yee sax simtirana in mais nak e, yaal yip fe toayara in fa yar faga bo wax deg mayu ka wiin we puusa in pour i leyino sax to i leykiran yaam ten yarte in naaga i to njaboot ka ɗom aussi a ɓiya xe yarona sax mbelanoyo mbodrangoyo leyirong koy o leyele o refu entraîneur national mu refna xano kiina inoor ma oxa an kerona andiro éducation um andiro dara um fo pangaroyo to anda équipe nationale refe mbir nu refna ngooya ko mofa rek bo te ganjaye an refu maaga pafonganin mbeguma kapongalin sosoxin maago laadirin jibi an tiroden sakota o téléphone o koyada ngara to anda fi sereer oxu refna gara a yeg six parce que janga samedi jang dimanche mi mu lakwoona wiin we leya jiwo xaay jiwo xaay o fadid ah, a anda tesio nge no kiin anda tesio nge no kiin garaxida aussi ɗof we mbod maana a leyang o retanga équipe national fato moytu embourage nene nandu nana fiya o fadid commencer fi nene xa ɓayare refe miskileer o gar ƴufi we ƴuf kiim parce que nangam bo nangam to yakane xana yaron ko onan ne ta bugna to kiin nan ke nun xaar kiro kuuxanin mo kiro bo layno ten ka jël na jara jeg feer to xana soɓong lega ɓisong temeet kon nag wax dëgg paa ambu i mbaagirango dabidoyo i mbaagirango dabid moofanga laya xay nawo mene fo ke yoqna njeeƴ ne waage fag parce que nag miñe me andaam nawo mayu parce que fi'a nawo mayu naturellement mi paa ambu paa pesa refu paa pesa refu parce que no ku rokumana adna wala mu rettuma bo gen roka anda tinum wala me toluma andinum an xoyin layne ɓeer mexino probléme kene to ke ta lay taxama mbayanga a neewanga xam jirñoorin to xam reefin to xam sutuno situation kaaga bo ta bare to o kiin nankiram kon waaginum o rabid wel mo andira fa faabes fa rimaxama to a fel'angan soɓkiran teen yaam yaam rimel andiram kungkung rimel yeta anda xam presque yaaga faabes waajure sa yara xam bota fag mais yaqane bo ndiig bo ndiig bo ndiig woɗetunanami walla muubaduma na walla muuretuma wamo présenté u to garage en mom ten mbi'unnami bo xaye ndiiki ne nak aussi pirke e fop oxu ɓeerna équipe nationale a mbokatoora a ɓisna moyo o fadanga ku waagoona o gidmanina in a paaxambo mais comme fa lay e fele aussi waaganum o laye oxu ɓeerna no ɓayof xaye équipe nationale bo no xu taxaagna rek aleykum euh, mbooloo mi euh, gannaaw bu ma sante yàlla ñu ci yonente bi et eh, ñu nuyu képp ku fi teew tàmbale ci kilifa euh, yi monsieur le maire ak son staff ku fi nekk ci sa tuur ak ci sa sa sant am mbëgte lool lool lool lool di teewee euh, euh, manifestation bu mel ne parce que comme je l'avais dit François Ndiaye Euh, Abdou Badji wax ko léegi euh, li ngeen def ñun ngeen ko ñun ngeen ko defal ñun ngeen ko defal réew mi ngoon ngeen ko defal donc amuñu lu dul di gërëm di euh, sant disons initiateur initiateur manifestation bu mel nii parce que lu lu rëy la parce que parce que en ça defal na Sénégal loo xam ne ñu ko fi ñu ko fi def bariwul donc euh, maa ngi leen transmettre aussi nuyoo euh, docteur Alioune parce que il m'a dit Ibrahima euh, je voulais bien être présent à Palmarin et tout ce que représente Ambroise Sarr mais malheureusement lui aussi aujourd'hui et demain dafa sargal bu ñu ko bu ñu koy chez lui à Fatick nee na loolu moo tax mënul teew mais su ma ñëwee leen àggaleel loolu ne leen loolu moo tax teewul et euh, mi ngi euh, transmettre toutes ses félicitations à Ambroise Sarr et également tous ses remerciements et encouragements euh, aux initiateurs de cette importante manifestation. Euh, Excusez-moi, euh, petit, petit, je ne vais pas lire parce que euh, li ma bindoon dafa xaw a bari te li ci euh, est actuellement 16 heures presque 20 minutes 15 heures ou 16 heures. 16 heures. 16 heures. 16 heures. donc ndax euh, toogaay bi toogaay bi yàgg na. moo tax euh, li ma li ma doon dama koy tënk rek surtout que li ci ëpp ñi ma jiitu euh, wax nañ ko. donc gannaaw bi ma gërëmee ñëpp di leen wax ne Ambroise Sarr yàlla moo ñu boole parce que Ambroise maa ko jëkk gis en 1980 aux Jeux olympiques de Moscou. foofu la ñu suñu yoon yi euh, mësu jëkkee daje ensuite suñu borom def en 1982 que euh, le ministre euh, François Bob alors affecté ma au niveau de la lutte à l'époque c'était un CNP comme secrétaire général permanent li ma ko duggee nag ci laa gën a xam Ambroise Sarr parce que su ci la ñu yàlla boole ñuy voyager doo ensemble xam nga pour nga xam nit il faut nga dëkk moom ab diir donc euh, ci laa xam Ambroise euh, kan la euh, lan la bëgg ak fan la jëm Ambroise li ma mën a seede ci moom mooy am na trois valeurs cardinales yoo xam ne feu le président Léopold Sédar Senghor daan na ko wax mooy le muñ le jom la kersa loolu euh, carrière am yëpp loolu moom la jiital jom muñ kersa ak aussi de la générosité générosité bi moom maa ko di teg mais Senghor ci ñett yooyu la yemoon alors pour firndeel la leen euh, loolu par exemple muñ bi ak euh, ak jom ji dem nañu Jeux africains Nairobi parce que en 1987 alors comme ni ko Abdou Badji waxee loolu léegi Ambroise Sarr soo àndee ak moom déjà daf lay wóor ne campagne sera dorée parce que homme il euh, il deux médailles il valait deux médailles d'or médaille d'or en en et médaille d'or en livre alors li yàllay def euh, à Nairobi mu gagné la finale euh, de gréco alors euh, à euh, l'Égyptien léegi nag bi mu koy gagné malheureusement ci combat bi mu am euh, une déchirure musculaire bu métti métti métti métti te mu war a jouer euh, sa sa finale le lendemain alors docteur bi ñu àndaloon docteur Lamine Thiam nga xam ne moo doon le le le le médecin de toutes les équipes nationales pratiquement surtout du football alors euh, ne ko yow sa sa blessure bi mënoo ci bëree dafa garaaw mu ne ko looy wax ni quel que soit alpha man damay bëree docteur bi wax. ñun enquêteurs yi wax mu ne non dafay dafay bëri et euh, bon médecins yi xam nga am nañu yenn euh, espèce de calmant yu ñu lay piqûre pour que nga mën a kii mais bi mu yéegee euh, pour jouer sa finale malheureusement bon genre anesthésie la anesthésie bi mu mu muy dañ donc blessure bi ils ont réveillé wu alors entraîneur au Nigérian bi mu daan bi mu doon tasel def signe euh, mbërëm ne ko attaqué ko ci côté bi alors mu ko attaqué nag foofu la kii bi euh, lâché alors euh, noonu la perdre combat bi alors xam nga loolu jom joma nga ci muñu nga ci parce que su doon mbëru léegi bàyyi na nga yàgg na mais il s'est man réew moom ma yóbbu couleuru réew laay défendre su ma su ma Euh, disons, si je me disqualifie, alors on perd une médaille d'argent, au moins. Donc euh, il s'est battu pour euh, cette médaille, cette médaille d'argent-là. Donc je crois que caractère am la ci carrière am muñ jom kersa aussi bari woon na ko lool lool lool lool ñëpp la respecté woon même ses adversaires ak seeni dirigeants ñoom ñëpp la joxoon cër respecté leen staff moo tax aussi retour baa ngi nii ku ci nekk yaa ngi bi ko yëgee dañ koy sargal yaa ngi yaa ngi bind di wax lu baax ci moom et cetera parce que moom moo leen ko moom mooleen ko ji moom moo ko ji donc kersa gi moom macha allah euh, ak générosité générosité benn exemple bu ndaw rek laa leen di jox ànd nañu Abidjan kii euh, euh, à l'époque mooy comme ni kii doon pour les tournois de Laurent Donald Kologo alors euh, léegi le président Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire léegi alloué ay primes à toutes les délégations bi ñuy alloué kii primes yi à l'époque le directeur technique était Ibrahima léegi ma ma tëju ak le directeur technique Ibrahima ñu defal enveloppe yi ku ci nekk ñu li nga am mais euh, ñoom bi ñu ko jotee muy moom ak euh, dubales ñoom ñoo xool affaire yi après daal daal di ñu yëkkati seen loxo ne ah Ibrahima ma ñëma juum ngeen de leen ah ñu ma non waruñu am lii waruñu am lii donc euh, am na ci au moins ci groupe bi am na ñaar ñoo xam ne séddoowuñu ma ne ko effectivement man ak directeur technique bi ñun séddoowuñu ci euh, prime bi leen euh, président de la république yi jox <coughs> mu ne ñëw lu tax lu tax euh, ma tontu ko ne ko non prime bi c'est pour dañ ne bi pour c'est pour les lutteurs donc encadreurs yi bokkuñu ci Ambroise Sarr ne ma non il n'en est pas il n'en est pas question mu ma bi ñu ñëw agent de poche bi muy jox jigéen jot ngeen argent de poche ma ne ko oui mu ne ma délégation bi benn la délégation Sénégal la wax léegi suñu ñëwee en délégation yàlla def ñu am wërsëg bu bu feeñ eh dañ ko war a dañ ko war a bokk waru leen jox ñun les lutteurs yéen ngeen ngeen ngeen bañ a en tout cas su fekkee ne noonu la euh, am su fekkee ne noonu la man jëluma sama xaalis teg enveloppe dugalees aussi teg enveloppe ci la ñoom docteur Faye Jérôme Jérôme Faye ak ñoom Moustapha Gueye ci la soog a ñëw aussi teg seen seen enveloppe pour que ñu defaraat euh, calcul bi pour que ñëpp mën a seet xam nga loolu euh, c'est un trait de générosité n'est-ce pas alors donc euh, vraiment euh, carrière yëpp loolu la loolu la jiitaloon muñ jom kersa ensuite euh, générosité ba pare yàlla def ne euh, moom c'est l'un des rares lutteurs boo xam ne euh, il excellait maanaam bon il était performant dafa xarañoon voilà ci forme de lutte yi doon pratiqué à l'époque fii au Sénégal maanaam xarañoon lool en lutte traditionnelle avec frappe en lutte traditionnelle sans frappe et en lutte en lutte olympique lutte olympique bi ci ñaari côté yëpp la xarañoon aussi bien la lutte euh, gréco que la lutte euh, libre alors ce qui fait que euh, li mu defal Sénégal ci surtout ñaari lutte yooyu la ñu ba jëkk maanaam olympique ak ak ak bon kenn kenn mënu ko kenn ko nag bon lutte avec la sax je peux dire que kii question bon passion la certes mais bon il y a de l'argent en soubassement mais côté bële muy lutte euh, traditionnelle bi ak lutte euh, olympique bi bon kooku du du question xaalis question euh, sa réew pour sa pour sa pour sa réew. voilà donc pour la pour pour, carrière donc euh, comme ni ma ko waxee euh, sànq il euh, excellait au niveau de toutes les formes de, de au niveau de toutes les formes en lutte traditionnelle avec frappe moom kooku euh, lan moo doon marque de fabrique am technicité endurance ak audace. ñetti ñetti trait yooyu ñu doon caractéristique moo tax pratiquement euh, tous les lutteurs de de sa génération mu ngi daanu aussi euh, soo ko daanee mais combat yu metti la doon euh, combat yu combat yu metti la doon la doon la doon nekk alors sur le plan lutte lutte olympique lutte olympique il fait partie des lutteurs qui écrit les plus belles pages de la lutte olympique euh, au Sénégal comme nag ni nga ko waxee euh, sànq d'abord ci vernissage bi et ensuite euh, ensuite ensuite sànq ci ci bi alors il a fait quatre olympiades Mous Mous Moscou avant Moscou Montréal Moscou Los Angeles à, à, Séoul, non pas euh, Barcelone, à Séoul. il y a été en tant qu'entraîneur. Donc, mais Yelek, il, y a été en tant que pratiquant. Et euh, le de il a, eu un parcours honorable en lutte, euh, en, lutte, en, lutte, olympique. Machallah, bon, aussi bien sur le plan euh, continental que sur le plan mondial. sur le plan continental moom euh, daanaka euh, amul woon adversaire parce que adversaire yëpp moo leen mënoon euh, comme ni ko ni ñu koy faral di waxee nee na nee na rajax fële Niger nee na rajax fële Maroc Égypte maanaam Caire ak ak Alexandrie Tunis et fépp fu mu dem daal euh, pour euh, les championnats d'Afrique de lutte euh, olympique il s'est illustré ba yàlla may ko ay dab alors je vous je vous disais tantôt que lui il valait moom du valais ku ci nekk il valait deux médailles d'or donc soo calculer euh, d'or yi mu gagné Aliou Ambroise Sarr soo calculer médaille médaille d'or yi mais euh, plus de dix médailles d'or donc on peut dire qu'il a été plus de dix fois champion champion d' Afrique kan moo ko fi def Isabelle euh, Isabelle Sambou bon euh, elle a été deux fois championne euh, d' Afrique mais qui il a été plus de plus de dix fois champion d' et pourtant en retour du ko du ko bàkkoo du dégg mukk mu ne man de médailles en. lutte, euh, tant de médailles d'or, j'ai ceci, j'ai cela, etc. Il, il, il le prépare. Donc, euh, loolu aussi ci euh, ci humilité ci humilité le bokk lu am solo donc li mu waroon def ci lutte lutte euh, olympique bi yëpp def na ko c'est que comme ni ma ko ko waxee ce matin wolof bi li ñuy wax naan lu duub lépp xajul ci xajul ci cin li donc on peut pas mënuma parce que carrière am carrière am gudd na lool palmarès bi gudd lool mais euh, je crois que quelques traits rek wane na euh, en lutte euh, en lutte olympique kenn demul mu des et surtout nag lutte africaine lutte africaine moom maanaam mooy li ñuy woowee fii bëri simple lutte africaine moom je peux dire que xam nga fii bëri dóor dañ des arènes je peux dire que moom en lutte africaine. Sur le plan africain, c'était le roi, c'était le, des arènes africaines. Parce que, parce que euh, Peuple euh, montrait ses preuves. À l'époque, euh, l'essentiel des manifestations s'organisaient à, à Niamey et à, et à Abidjan. mais musuma man musuma fekkee man de Ibrahima waxtaan wax monsieur la moo tax aussi dëkk yooyu dañ ko fonk fonkaay boo xam ne surtout au Niger ñaar xam nga dëkk boobu c'est un pays de lutte c'est pas un pays de football comme Sénégal ak yooyu ñoom xamuñu couleur yi ay xamuñu ay Sadio Mané El Hadji Diouf et cetera ñoom ay Ambroise Sarr la ñu xam Double Less et cetera Ambroise Sarr c'est le lutteur le plus connu le plus connu au Niger même xale yi sax xam nañu kan mooy Ambroise parce que même bi mu bàyyee bële xam nga il était entraîneur léegi commentateurs yi suñuy suñuy présenté équipe Sénégal dañ koy présenté waale wax moom mooy kat moo tax euh, soo àndoon ak soo àndee ak euh, Ambroise ñaame su ngeen di dox ci mbedd bi soo soo ya soo yàkkamtee moom euh, di nga di nga xaw a sonn parce que dañ koy xàmmee ensuite du ni ñu ko ni ñu ko respecté foofu euh, su arrêté taxi su sëggee su ko taximan bi xamee rek ne ñëw duguleen du ñu fay du ñu fay dërëm donc xam nga xam nga kooku am na lu mu wone lu tax euh, ni ñi teg ko teg ko foofu maanaam euh, son sérieux sa rigueur sa sa technicité son humilité et cetera et ensuite mu daan nag les plus grands champions nigérien ñoom ñëpp la la jàpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp euh, côté boobu moom vraiment disons pour man la lutte euh, la lutte africaine c'est euh, disons l'apothéose de la de la carrière de d'Ambroise d'Ambroise Sarr Lumière alors euh, en boucle, comme on l'appelle euh, affectueusement, disons, est, euh, est, une icône, aussi bien au Sénégal euh, qu'en Afrique. Il est, il est plus qu'une qu star. Vraiment, euh, <coughs> Amaneko Boukel, qui lui le Sénégal. Légui, euh, comme nous l'avons dit, Alors, euh, il vous parlait euh, de On lui Si ma mémoire est bonne, je crois que c'est après, les, euh, un an après les Jeux de Barcelone. Je suis comme entraîneur lutte, euh, lutte, lutte, en 1993, il est nommé euh, entraîneur national de alors soo soo soo com soo compté biñ ko nommé ak bi muy euh, bi muy bàyyi bi muy bàyyi ce poste d'entraîneur ça fait pratiquement trente trente ans voilà alors ci euh, ci ci trente ans yi xam nga mosoo gis fii entraîneur bu def trente ans quelque part mais moom lu tax mu def trente ans mooy d'abord sa passion pour la lutte dafa bëgg dafa bëgg lutte ensuite. Euh, dison euh, yéene bu mu bu mu am ci ay ay ay ay doomam pour que bu mu toll woon ñoom aussi mën fa mën fa toll et puis euh, également bëgg bëgg bëgg ndam alors ci ci fanweeri at yi mën nañu compter ci défaite équipe nationale muy euh, ñaar ñaar face au ñaar face au

mais euh, c'est très rare nga gis un sportif def euh, def quatre olympiades c'est très rare et puis là surtout nag ay olympiades yoo xam ne dañoo donc pendant seize ans tu as été performant ci forme de lutte bi nga pendant ans sa dëkk kenn du taxaw sa kanam xam nga loolu performance n'est-ce pas donc quatre euh, quatre olympiades succès successifs ba pare nga euh, def aussi 30 ans comme euh, entraîneur euh, national ci 30 ans yi nga am ci uniquement trois défaites alors c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire ni ngi dégg naa ne ma que c'est le sportif le plus méritant de ce pays-là qu'on le veuille ou pas parce que euh, Amoura Sarr je le qualifie comme étant l'homme des records. Tout son, toute sa carrière, toute sa carrière, c'est des records. Je vais vous rappeler ces, ces, records-là. Le, premier, moi, donc, le seul sportif avoir fait quatre Olympiades successives. Le deuxième, le deuxième c'est, euh, plus de 10 titres de champion d'Afrique remportés en, lutte olympique. Euh, le troisième record, mooy euh, roi des arènes africaines pendant pratiquement une dizaine d'années. Et euh, le quatrième record, c'est 30 ans de coaching de l'équipe nationale de lutte africaine. avec uniquement avec uniquement trois défaites xam nga loolu je crois que palmarès bu gën a éloquent loolu amul donc moo tax ma ne c'est le c'est sportif sénégalais le plus titré en tant que pratiquant et en tant que en tant qu'entraîneur alors euh, j'ai l'habitude de, dire que malheureusement euh, li ma li ma bëggoon euh, ñu defal ko defal ma ko parce que Ambroise li mu jiital mooy li doon Gérald de Kenya bi doon naan da ngay ce qu'il a fait kenn defu copie alors donc normalement état l'état sénégalais euh, avant muy génn àddina l'état sénégalais war ko gestu en l'honorant à l'honneur plus que, disons, sa classe d'âge l'a fait parce que classe d'âge bi li mu def loolu loolu la def na war waram mais état bi deful état bi deful waru waram loolu il faut qu'on se le parce que euh, Ami Mbacké Thiam et Amadou Diaba mais yal na leen jàppale ñu def benn exploit benn exploit n'est-ce pas exploit la ñu def allô donc euh, je disais que euh, Amadou Diaba et Amin Mbacké Thiam yàlla moo leen jàppale ñu sargal leen état bi honoré leen benn exploit bu ñu def médaille euh, médaille d'or médaille d'argent euh, aux Jeux Olympiques pour Amadou Diaba et euh, médaille euh, médaille champion champion du monde pour Amin Mbacké Thiam xam nga foofu c'est pas la constance parce que kii li mu fi indi ay ay euh, titre de champion d'Afrique ay médaille d'or tout ça et ça mais ñoom indiwuñu ko fi ñoom yàlla leen dimbali ci benn compétition ñu def exploit alors léegi ñu ne ay légende lañu alors que la légende vivante c'est Ambroise Sarr qu'on le veuille ou pas c'est Ambroise je crois que je crois que le cri du cœur là que je en train de lancer je crois que ce cri du cœur sera entendu un jour euh, par euh, l'État ñu def seen warugar parce que moom def na def na warugaram mais malheureusement euh, en retour état bi deful lu mu doon def maa ngi leen di gërëm di leen sant mënoon na gën a gudd mais euh, toogaay bi dafa dafa dafa dafa yàgg euh, donc di gërëm ñëpp sant ñëpp te bala may daaneel aussi ki toog sama wet muy Ambroise muy Abdou Bati moom aussi il faut que ma delloo ko njukkal parce que il s'est sacrifié pour euh, euh la promotion de la de lutte au Sénégal et sous toutes ses formes vraiment il s'est il s'est battu euh, yàlla jàppale ko mu am ay collaborateurs yu mel ni ay euh, ay Ambroise Sarr bon def ay résultats yu comme j'ai toujours l'habitude dire par exemple la lutte olympique féminine il y a trois géniteurs Euh, Cheikh Ndour Abdou Abdou Bassi Lansana Coly donc euh, maa ngi koy gërëm di ko di ko sant euh, di ko encouragé aussi li muy def bien que il est à la retraite mais teewul chaque année day dem au terroir à Thionckessi organiser les jeunes organiser ay manifestations de de lutte de judo et cetera mënoon na ko bañ a mënoon na ko ci bañ a fekk mënoon na wax ne je suis à la retraite je vais faire comme Ibrahim Assar, je vais rester à la maison, écouter ma musique, bien dormir, etc. Alors, euh, mais il continue à s'investir. Donc, euh, je profite de l'occasion également pour euh, le remercier, euh, le a et, et l'encourager. Euh, man yàgg naa ko yàgg naa parce que xam nga dëkk bi ci ñi ko yàq presse bi la presse la ci ñi ko yàq te ñi yàq dëkk bi lañ bokk. Mais lui, il n'en fait pas partie. C'est pas parce qu'il est là que je le dis. Parce que il est objectif. su gisee loo xam ne euh, vraiment euh, dafay jëmale yëf yi kanam da koy wax. su gisee aussi loo xam ne euh, bon moom daal kii na aussi daf la koy wax. ngeen échanger et c'est ensuite la vie continue et puis du sos. xam nga la presse ñu ci ñu ci bëri dañuy sos. mais moom du sos il est il est objectif. donc vraiment lui aussi yal na ko yàlla yal na ko yàlla fay. madame uh, madame Ambroise Sarr aussi yal na ko yàlla uh, yal ko yàlla fay yàlla taxawu ko alors barkeel barkeel njaboot bi ñi fi toog ñëpp eh bien maa ngi gërëm di sant ñëpp ku fi indi jàngoro yal ko suñu borom saafara alors yàlla yokk wér gi mën gi ak wërsëg gi jërëjëf Thank Oh, आई बेनान लेकर हो जगले आई बेनान लेकर हो जगले एंगले एंगल आई बेनान लेकर हो जगले आदम लो यो सनया आबिया नान दे आदम लो

loolu xooya rabali musa kanku singere loolu xooya rabali musa kanku singere e jagaye loolu xooya rabali musa kanku singere loolu xooya rabali musa kanku singere e jagaye loolu xooya rabali musa kanku singere loolu xooya rabali musa kanku singere जसों में तुम अवेदन हमारे

salaamaaleykum mbokku internet yi ñu suivre ci seen chaîne bi Bantamba TV ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax a baax euh, ñun ñëw fi tey euh, Palmarin Palmarin li koy li li war a ñëw bi tey mooy Ambroise Sarr moom la ay ay ay ay ay xaritam ay ay ay ay namuleew doon sargal tey fii mu mu commencé démb jeudi ak tey vendredi 9. 8 ak suba samedi 9 décembre waaye ñu ñu ñu ñu ñëw fekk fii kenn si waa làmb xada fii lañ lañ koy wax mu dëkk ñoo joor donte xam naa Sénégal waa Sénégal Omar Diouane la ñuy gën a xam waaye kii kii mooy magam Diouane gën gën a xam ndax moo jaar équipe nationale def defal li li fa def waaye kii kii kii kii mooy magam nekkoon mbër waada mbër Kamil. yàlla dogal nag bi mu tekkee ngem comme ni ko ay moroom yu bëri di di defee di entraîné xale yi di ànd ñoom di di leen tette di di di leen di leen won yu bëree bëri bari di leen entraîné ñeen ñeneen mu leen di gunge di leen won yu bëree bëri bëri rawatina ci ci ci wàllu mystique préparateur mystique la lañ ko lañ lañ ko mën a tuddee ndaxte ku xam Siteu xam ne année mi passé combat mi passé Oumar Diagne Xadafi euh, mi moo moo ko doon indi ku xam Boy Niang 2 tamit xam ne année yi passé yëpp xale fi mii moo ko indi kon nag bu ñu ñëwee euh, fii Palmarin gis ko fi yoon la ñu seq ak moom laaj ak tontu liñ koy njëkk laaj mooy xada Xadafi turu Xadafi bi yow tuddoo tuddoo fi turu turu turu Xadafi bi est-ce que mën nañ xam fa la jógee. auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim waaw ah, internet ñu ngi nuyu ñëpp recommander waaw waaw waaw bu la waaw waaw man man li mu ngi fi léegi li may def mooy xadafi biñ lay tuddee am nga tuur du du loo xadafi maanaam bi bi nga juddoo am sa papa wutal na la tur waaye xa xadafi lañu ñu gën a xam lañ moo lan moo waral turu xadafi. waaw alhamdulilah. auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim gannaaw bi ñu sante yàlla julli si yonente bi ñu ngi wax jërëjëfee Baay Ñas moom mi ñu génnee ci lëndëm gi yóbbu ñu ci leer bi waaw di gërëm samay ñaari waajur gërëm samay mbokk ak am ci jàmm yëpp waaw turu Hadafi bi nag fu joge jaaxal na ñu bëri waaw mais tur bi moom moom lañ ma tuddee waaw sama papa moo ma ngénte tuddee ma Momar Hadafi ah, waaw moom lañ la tuddee kon le vrai Hadafi waaw moom lañ ma tuddee Momar Hadafi Juwaan ah. waaw lan moo indi loolu relation bi sa papa amoon ak Xadafi dafa amoon relation moom wala euh, tur bee ko neex rek kooku neex ko mu mu mu mu tudd la ko wala. du ma wax relation sax mais yëg-yëg laay wax. Mm-hmm. waaw ndax Xadafi moom képp koo xam ne yaa ngi si monde bi di déglu information. Mm-hmm. waaw képp ku nekk rek bëggu na am doom mu mel ni moom. waaw ndax góor dëgg la woon. Mm-hmm. waaw góor aller retour. waaw xam naa loolu rek moo ko si dugal mais amul ak ñoom benn relation. waaw nga làmb ba mu jeex nga am nooy def laata ñëw si préparation mystique beeg xale yi ngay entraîné di ànd ñoom sa carrière euh, xale fi lan moo la si gën a marqué en tant que mbër. waaw sama carrière li ma si gën a manqué. waaw li ma si gën a marqué mooy maanaam bi ma nekkee fin carrière bi may bëre poids lourd. waaw loolu kese moo ma si manqué ndax loolu moo doonoon sama vision bu may takk ngemb pour dem bëre. waaw ndax man bi may débuté làmb boobu ñoo joor làmb maanaam ñu ngi si mais nekkuñ si à cent pour cent. lool lool waaw. waaw mais dama ñëw bàyyi lépp liggéeyuma dara topp làmb. waaw am fu ma teg sama bët. ndax ñun rafle woon nañ poids lourd ñoo joor waaw rafle woon nañ ko foofu laa tegoon sama bët. Mhm. waaw bi ma yeggee foofu tamit. Mhm. waaw defuma si li ma bëggoon def yëpp. Mhm. mais amoon naa bés daal. waaw amoon na saison yoo xam ne manoo lim mbër yi te limoo xadafi. waaw te mbër buy génn tamit xadafi ngay sooraale waaw man loolu moo ma taxoon a takk ngemb dem bëri ji. waaw si ñi nga bëreel ñan ñan nga si gën a jàpp sa sa génération kan ak nga doon bëreel yow. non sama génération presque ñoom ñëpp bëri na ak ñoom. Hmm. waaw à part ñi nga xam ne ñun nag ñoom ñoo dëkk. waaw yan mbër la woon quoi sa génération yan mbër nga nga dajeel. ñu ak ñoom yanku ñi nii benn génération lañ. Ah, yanku mooy yanku ba ñoo jor maa doon moom muy génn samedi. Ah. waaw. waaw bàyyi nga waaye waaye waaye bàyyi woo parce que yaa ngi ci làmb ba ba tey yaa ngi ci làmb ba tey mooy yaa ngi gunge ay ay mbër yu am tur ku mel ni Siteu Yankoba ak ak ak Xadafi euh, ak Siteu seen relation foofu la jógee donte nag xam naa ne si ili la parce que ñooy doon la ak ak jonwaar mais est-ce que dafa am yeneen relation yu yu yu lalu si gannaaw. waaw waaw Siteu li ma moom mooy juddu waaw moo moom ñoo juddoo si il bi. waaw juddoo si benn commune bi waaw muy Dionewar ak ñoojoor waaw mën naa wax ne ñoo bokk lépp suñ limantee ay maam waaw dina am foo xam ne maa ak dañuy daje foofu waaw ndax séeréer yi ñëpp a dëkk boo dem am na lignée bu fa nekk waaw ñun suñu lignée ñun ay simala lañ ay simala ngeen waaw te suñu simala waar la jóge ñëw Niodior waaw kon man ni ma amee paar ñoojoor noonu laa ko amee jonwaar waaw habitant laa ñoojoor doon alkaal jonwaar waaw. ngay ànd ak Siteu ñu gis ne Siteu bi ñu xamoon ak bi ñu xam depuis deux ou trois ans xaw na wute lan moo change si Siteu entre temps depuis bi nga commencé ànd ak moom ba léegi gis nañ changement bi c'est quoi. waaw changement bi du dara xëy na dafa jëm mag rek waaw ndax fougue de jeunesse moom su nekkee si yow. manoo xam di nga doon à cent pour cent waaw mais moom bu mu demee ba doon mag moom dem na ba toog boo xam ne làmb soo déggee ne làmb moom fi mu sokkee ko ñoo ko moom waaw loolu moo tax mu ñëwaat rek nekkaat si li mu war nekk waaw loolu laa gis ne moo indi changement bi. très bien Lac 2 Siteu donte Lac 2 moo moo gagné si si point si avertissement donc par jo mais li Siteu def keroog néew na ñu ko mënoon a xalaat avant combat bi loolu tamit lu si ci ci def lan moo ko may. waaw xam nga combat bi moom Lac Lac 2 moo gagné adduna bi yëpp xam nañ ko mais maanaam Siteu ñi ne si ginnaawam waaw ñoom ñun ngëmbuñ mbër pour mu dem daan waaw ñun dañoo ngëmb mbër pour mu dem bëre ci fula ak fayda waaw gagné suñu xol yi moom gagnéwul combat bi mais. gañe na xol yi ñi nga xam ne ñu ngi si ginnaawam ndax loolu kese moo leen yóbbu woon mu doon leen mu jox leen plaisir làmb mm-hmm. woon leen ne góor laa góor ëppalewu ma dara lépp di góor di def mën naa ko mm-hmm. waaw te won nañu loolu si combat bi comme moom jox nañ ko defet mais dese desewuñu dara si combat bi mm-hmm. waaw merci beaucoup ñu gis ne làmb dëgg la doole la technique la mën a bëri la waaye tamit euh, am na leneen lu ci ne mooy wàllu débat de musique mais Xadafi keroog li ngeen def si ci mystique ëpp na de. waaw non xam nga ñun séeréer ñun xamuñ mystique waaw mystique bokkul ci cumikaayu séeréer ñun cosaan lañ xam waaw xam nga làmb daa am ñu ko sos am ñu ko moom daa am luñ si doon def waaw demal ba fu la neex nag mais soo jotul ñi moom làmb mënoo see am li nga bëgg mm-hmm. waaw ñun yoruñ mystique mais dañuy def cosaan waaw waaw keroog li ngeen indi ci cosaan saf na sàpp euh, xada fi vraiment. waaw xam nga foofu la réew mi toll nii. ndax ñun dañuy seetaan télé yi. waaw waxuma Bantambala si je me trompe pas Bantambala maa ngi koy seetaan ñu ne. lambu ji dafa jóge si loxoy séeréer yi. waaw loolu dégg naa ko. waaw jógewu si te si mos a ñi fi nekk nii tej lamb ji te nekkuñ séeréer sax séeréer yee leen yor. ñoo di ngeen ba. waaw séeréer yi ñoo leen yor. waaw. waaw macha allah donc ñu gis ne keroog am na ñu ne ngemba li sawa indi keroog bu ñu doon bëre tey ba suba Lac 2 mënul woon daan Siteu keroog lool tamit euh, est-ce que mën nga ko dëggal. waaw loolu dafa leer. waaw loolu dafa leer ndax sa ko su ko mënoon daan da koy daan. Mm-hmm. waaw keroog moom Siteu ñëwul pour daanu moom. waaw wax dëgg fa yàlla. ko samp keroog daa. waaw Siteu moom keroog moom ñowul pour daanu. waaw ndax fi mu génnee si làmb. nekkul ñoo xam ne dañuy dem si làmb di làmbaatu. waaw lépp lu fay xew dañuy jóg ak moom. waaw. kon laata ngeen di ñëw xamoon ngeen ne ni nii rek demee wala. waaw nii rek la mënoon deme waaw nii rek la mënoon demee. waaw. su ngeen fa jógee yow Xadafi nga amaat beneen grand combat bu ñëw Boy Niang yaa yor. yaa ko indi muy bëreeg roi des des arènes roi des arènes dugg dugg daan fa Eumeu Sène dugaat Pikine daan fa Ama Baldé wala duggati Pikine alors euh, bëri ak ak Boy Niang boobu combat. Hmm. waaw combat boobu combat la comme combat yëpp rek mhm. waaw mais combat spécial la pour ñun ndax tamit mosu ñoo bëre combat royal waaw li ma mën a wax daal événement la daal le premier janvier waaw koy wàcc. waaw bu baax. Hmm. waaw. te ñu gis ne Boy Niang contre Balla Gaye ku xam ngeen ba xam mbër xam nga ne keroog uh, tamit li mu indi ah vraiment diis na de. waaw mooy li ma la wax rek ba léegi rek waaw xam nga Boy Niang lim doon nit ñi xamuñ ko. Hmm. waaw mais Boy Niang am na leneen lum doon lu dul lii nuñ ko xamee nii muy Boy Dakar dëkk ak nit ñi. Hmm. Boy ñaa si lamb la bok si lamb la waaw. fi làmb la bokk fi lamb sokkee ko moom tamit foofu la bokk. waaw. mais ba bii pas du ñu du ñu du ñu du ñu xëccoo trop ili parce que gis naa ne Modou it Modou it fa am ñu koy ñu koy ñu euh, maanaam ñu muy àndal ñu mel ni ñoom laaj ñoom rek ñeneen wala ay ñeneen nit ñoo xam ne ñoo ngi dëkk ci ili comme comme yéen jàppoo ne boobu combat ili moom ah du si du xaw a métti trop si du mën a métti si ñun xam nga ne soo siy dugg te jaaroo si bunt bi. Hmm. ñoom si palanteer rek lañ mën a jaar pour dugg si île bi te su boobaa duñ jëriñ île yi am nañ bunt dëkk boo dem am na bunt waaw. bunt bi yéen a ko xam. bunt bi du ñu na ko xam sax ñun la. dëkk dëkk dëkk boo dem bunt bi am na ñum doon xam nga dëkk duñ ko tëj waaw mais li tëj dëkk nit la waaw maanaam ñoom île bi ak ak benn mbër bu mu mënti doon nit ñaa fa fay dugg ñëpp a ngi tudd ñoojoor ni ñaa ngi fay dugg mais ñi si ëpp ci palanteer lañ jaar dugg nañ si dëkk yi ndax mais si palanteer lañ jaar mhm. waaw su dee làmb tey mhm. waaw soo koy wax si île bi ñun ñun ñi xam nañ mbër yi waaw mais soo doonul mbër mhm. mosoo laal affaireu làmb mbër jóge fale bëgg a dugg si île bi ànd ak yow nga koy doxal di nga am mais mais si bojo bojo yi ngay yem doo am dara waaw ndax xamoo dëkk bi waaw. buntu bi booy ñaa moom ci buntu bi lay jaar moom. waaw booy ñaa dëkk ñoo la. Hmm. waaw. kon boobu noo gisee mystiquement Modou Lo noo gisee. xam nga mooy li ma la wax léegi rek man mystique moom manuma see wax dara man cosaan laa xam. waaw cosaan moom mooy mystique bokkuñ. bokkul am na différence bu baax. waaw xam nga maanaam mystique moo mooy yàq mbër nit maanaam cosaan mënul yàq mbër. waaw maanaam sa adversaire manoo koo yàq ci cosaan man nga koo daan mu jóg dem nekk si leneen dafi ay soxlaam hmm. waaw mais nit soo ko mystiqué dëgg su jàppee soo ko daanee su bàyyee làmb sax du liggéey du am liggéey waaw te ñun ay jullit lañ ay taalibe lañ waaw ñun yàlla lañ yaakaar daal mooy li ma la wax rek. am na loo daal làmb jaralu leen ko. non non làmb jaraluñu ko. waaw loo xam ne soo ko defee ba pare di nga am ndam mais sa xol du neex ndax yaa ngi rëccu. yaa ngi rëccu non ñun dund jaraluñu loolu. Mhm. waaye daal waa ñoo di ngeen ànd ak Boy Niang bu baax ci combat bi contre Modou waaw bu baax a baax kay. waaw. ngay wax moom euh, Modou Lo du ma ko wax dara dama koy encourager rek di ko féliciter. Mhm. champion la. Mhm. waaw champion la ndax bés maanaam lim doon nii moom la ñuy yootu. mooy la waaw kon du ma def dara lu dul ñaanal ko yàlla rek. Mm-hmm. waaw yàlla may ko wër ba bés ba incha allah yàlla may ñu mm-hmm. waaw. jàpp nga ne mën ngeen war ngeen mën a daan Modou Lo. ah waaw làmb rek. Mm-hmm. lu na dañ see xew de suñ ko mënul woon daan duñ ko jël. non non waaw. ngay wax lan fan si ñi la xam euh, am du jàmm yi mbokk yi. waaw di leen jégalu rek ci interview bii nii ndax saaga yi. di leen jégalu ci saaga yi interview xam nga nit ñi lu tax ñun duñ def interview maanaam soo ma saaga rek adduna nga saaga ndax fi ma bokku la ñëpp laa bokkal waaw xam nga am na ay nit ñoo xam ne ñoo yaakaar ne ci asamaan lañ joge daanu ci suuf bokkuñ ak kenn mm-hmm. waaw mm-hmm. ci loolu laa leen di jégalu ñu xam ne maanaam dund moo fa yegg mm-hmm. waaw te te tamit soluñ suñ dàll di dugg si télé yi pour def interview waaw. Hmm. kon baax na loolu mooy lan la indiloon mbokk yi kooku mooy Xadafi dégg ngeen wax ji bu baax wax nag neex na waaye dégg-dégg dafa gën ti neex ñu jox leen rendez-vous beneen yoon merci beaucoup jërë ngeen jëf.